maa leen nuyu di leen ziar seen frère la Cheikh Anne kon di leen ko fàttali rek résistance bi fay continuer woote nañ mardi bi mercredi jeudi vendredi ba Macky Sall di daw génn réew mi kon dañoo soxla ay millions yi millions yi millions yi millions yi Sénégal diaspora ak biir Sénégal ñëpp nañu génn ñu xeex xeex bi ñun diaspora ñu koy continuer parce que li may ñëw tegal leen nii moom mooy suñu coordinateur Pastef USA moom mooy Ibrahima Dramé moom ak suñu soxna su baax soosu nga xam ne lépp lu ngeen gis lu ñuy mane si combat yi fii si diwaanu Amérique lu jëm si wàllu White House maanaam palais bu am états bi nga xam moo jiite moo yëngal Macky Sall ne leen eh élection yi tegu ko jigéen gu mën góor ak Ibrahima Dramé suñu coordinateur comme li may wax rek leader day def lefu leader boo nekkee leader da ngay taxaw taxawaayu leader sëñ Ibrahima Dramé ñun suñu coordinateur ñu ngi lay gërëm di la sant que mbir ñëpp ñoo war a jël seen responsabilité kenn warul toog. li Macky Sall mandaawam dafa jeex américain yi ne ko bur fi def coup d'état complot jeexal nga demal Macky Sall nak dem na uti ay tapale kat yo xamanteni jité won nañ Sénégal tay li ñu gën a si Sénégal moy bu dee Abdou Diouf moy yaq réew mi mom ak Senghor parce que xeex bi ñuy xex xexu depuis 1960 ba légui lañu xex mu ngi ko sa Senghor jaar ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade mi lima gëna gën moy Abdoulaye Wade mi nga xamne ne ñu bu mag bi di Macky Sall ndax président blamat lu ko nit lu ko nit di méré rek moy Macky Sall mi nga xamanteni ni moko def lepp lu mu doon tay ndax bu dul Abdoulaye Wade kenn du xam Macky Sall Abdoulaye Wade lool mom dang ko jéggalu Sénégal yépp président Abdoulaye Wade moy Macky Sall mi nga xamné ne ab saytaane té yow ya nañu xor la ya nañu jam la bi nga xam lool yépp lo loo ñu koy présenter yow tamit le président Wade tay ngeen def sen lettre di ba paré di ñu wax bëgg délo delloowaat ci sen politique 1960 yoy fi complot du fi am sénégalais yi réew mi Macky Sall doon na ko si ak ci bayam dañuy tànn dañuy dem élection Macky Sall jeexal na nekkatul président de la république bu Sénégal kon sëñ Ibrahima Dramé li ngeen jëlee White House si sénat yooyu sénateur yooyu ngeen demoon yow ak soxna ummi loolu laay ñëw tegal patriote yi ngeen xam ne résistance bi dafa war a taxaw kenn ku nekk li am nga si responsabilité. défe définition yi nag bari na bisimilah sëñ Ibrahima coordonnateur. léegi yow xewoon euh, Washington DC amoon rencontre ak donc euh, waxtaan yu am solo. li ñu ci gën a impressionné mooy Sénégal situation bu fa nekk dafa mel ni ñoom ñoo ñu ko gën a xam donc information yu wóor nañu xam jëf ji fa Macky Sall nekkee yëg nañ lépp voilà donc nee nañ dinañ def lépp loo xam ne bokk na ci seen kàttan pour jàppale taxawal peuple Sénégal démocratie bi nga xam ne moom la ñuy xamee bi ñu jëlee indépendance ba léegi di ko kenn salfaañi voilà donc mu amoon benn demande boo xam ne am nañ ko pour communauté bi tous les Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi Amérique nga am kayit bañ a am kayit boo nekké ci benn juridiction mu am fa sénateur wala congressman bind ko lettre wala nga wo office am ne leen pour ñu xool li xew Sénégal parce que législation bi nga xam ne ñu ngi koy préparé neewuñu dañuy sanctionner Sénégal que ce soit clair mais sanction la yoo xam ne c'est dirigé contre le dictateur et les gens qui le supportent ñi nga xam ne ñoom ses exécutants ñooy def le le sale boulot ñooñu la ñuy visé donc euh, pour yéen ñëpp pour ñëpp ñëpp ñu fi nekk daal muy sénégalais nañu bind suñu sénégalais yi ak suñu représentants yi ñu yëgal leen situation bu ko defee bu loi bi jaaree mu mën a am support boo xam ne moom lañ soxla pour changer situation merci beaucoup di leen euh, jaajëfal ci déglu bi vraiment. ok ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi fii si Washington DC nekk si buntu Sénégal tey nag amoon nañu daje ci ngoon gi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey relations bi nekk fii ci Sénat ñu wax leen tamit li nga xam ne moo xew Sénégal li ñu gën sax euh, jaaxal mooy que ne donte doon nañu jokkoog ñoom ñoom sax xam nañ ci lu bëri bëri léegi nag liñ leen di ñaan mooy ndax fi mu ne nii mbir mi day génn commission bi dem nag ci Sénat mais képp koo xam ne doomu Sénégal la nga nekk fii ci États-Unis moo xam am nga kayit wala amoo kayit demal bu nga xool kan mooy sa sénateur nga woo ko wax ko pour mu appuyer leen pour comme ça ñu mën a lijjanti problème bu Sénégal bi ci lu ci suba tamit yenn woon nañu ci congrès bi foofu tamit même réaction lañ fa am ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaan rek jàppale ñu ndax li du liggéeyu benn nit liggéeyu ñaari nit wala ñetti nit waaye liggéey la boo xam ne askan bi yëpp moo koy def maa ngi fi ak coordinateur bu États-Unis monsieur Dramé merci. jërëjëf soxna si Naby Vision macha allah soxna Oumou jàll kii mooy jigéen ju mën góor keneen ki mooy cordinateur Pastef USA seen liggéey rafet na dem nañ ci Sénat bi dem nañ ci congrès bi fii ci états fii dëkku démocratie lañ. gis ngeen photo bi ma tegal leen si kanam White House la sa palais ba lañ dem ñoom xam ne lépp lu xew Sénégal nee naa leen Sénégal Macky Sall amul lu mën ngeen gisee mu naan leen day génnee Sonko patriote yi nag yéen laay waxal ak sénégalais yi Macky dana bàyyi le président Ousmane Sonko Macky dana bàyyi détenu politique yi su nekkee ne da leen bàyyi ñun suñu yoon bu mu nekk si loolu parce que xeexu le président Ousmane Sonko mooy libéré Sénégal xeexam du moom mu am liberté de nee na moom Sénégal am liberté moom nag bu génnee ñu topp coowal Sonko génn na la dëtan ko lay génn ñu jox leen glace ñu toog naan ko na sedd Sonko si boppam la ñuy tegaat coono parce que Sonko nekkul kuy réclé nekkul kuy complot fii lay toog def ay conférence de presse di ko partagé ñuy xeexaat même chose lu xeex su ko defee nag ñu jëlaat milliards yi tas ko si euh, seen colonie colonie xaw ma chroniqueur lañ leen di wooye xaw ma lu ñu wooye journaliste yooyu di taxawaalu si télé yi ku gën a dàq nar nga ne sama morom nga ne kii la you know ñu nekkaat fii nag di dundaat coono bi liñ seq ak Macky Sall mooy dañ ko joxoon mandat mandat bi jeex na mu tànn candidat mu gis ne amul fu muy jaar amul bunt muy daw di wooye ay wàllu ay Abdoulaye Wade ak ay Abdou Diouf ak lu waral loolu ku daan wooye sëriñ si sëriñ yaag sëriñ soosu ñenn si ñoom yaag ñoom a yem ñii wan la ginnaaw ñii taxaw jàkkaarloog yow léegi nag ñooñu noonu Macky Sall comme que moom amatul foofu dara mu dem si ñaari baayam yooyu muy Abdou Diouf ak tey la nangu ñooñu jur ko démb daa bañoon ñu jur ko léegi nag ñun sénégalais yi nañu am suñu fule suñu bopp ñun ñooy dee si kaw seret yi ñun lañ jaay géej gi ñun ñoo amul liggéey ñun ñooy dee si hôpital yi ñun lañuy ñuy ñun ñoo xamul njëriñu police ak gendarmerie ñun la ñuy toroxal si réew mi ñun la ñuy tëj si kaso yi ñun ñooy xiif duñu lekk ñun ñooy yor location yu métti lo weer dee ñu fayee ko location ñun ñooy bay kenn du ko jënd li ñuy teg lépp kenn mënu koo wax ñun la ñuy wan nañu yéen du ngeen fi dara la ñuy xëy toj suñuy place ñun la ñuy xëy di jàpp suñu yaay di leen dóor ay police dóor jigéen loolu yëpp gis ngeen ko fi amul lu ñu fiy sos problème mu Sénégal boo doon mun nga boo doon toog ñaari at di ko wax doo ko jeexal yoo xam ne kenn moo ñu ko teg mooy Macky Sall ñu doon wax alhamdulilahi rabbi alamin bañ yegsee fi ñu war a tànnee mu ne moom du dem siisu ndax li mu gis ak li si kanamam Ousmane Sonko nag yàlla na génn am liberté loolu la ñu bëgg le président Ousmane Sonko mu sell mais combat bi day continuer ñu libérer Sénégal suba dañoo si euh, mardi bi ba vendredi dañoo soxla ay millions si kaw terrain million yi nit amul dellu ginnaaw xeex ba Macky Sall daw abal ñu amul reculer amul give up le combat continue les patriotes focus bu leen benn télévision wala rajo di leen divertir nañu xam lu ñu bëgg xam fu ñu jëm mbir mi libéré Sénégal la fu mu toll nii xam nañ ne Sénégal yëpp benn métier la ñu am mooy Ousmane Sonko bi ñu teg si kaso bi dañuy xëy ba ko gis nañ Alioune Tine nag ñoom seen ñu ngi def seen yooyu noonu di ko dimbali di ko utal fu mu jaar naa ko non yële tiital xam nañ ko bàyyi danañ xool booy yi moom Sonko boo bàyyee Sonko rek mais sonk Sonko dafa yee suñu ay xel sonk dafa dindi complexe su ñun te ñun duñu noppi fu ngeen jëm ñu jiitu leen sama gars yi focus rek jaa ngeen. asalaamaaleykum patriotes yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di wax ne dégg ngeen audio yi ma dambal jaañ yi dégg ngeen ko loolu li mu war a yokk muy focus ak maintien parce que ma dambal. lim daan ñemee wax ci kaw plateau yi ak radio yi léegi ñemeetu ko wax ay groupe whatsapp lañ ubbi di ca wax seen nakar kon moy tanc nañ leen ci mir bi te gis nga Pastef réalité politique la dang koy nangu adopté ko and ak mom dox nangu ko mu écraser la jaar ci sa kaw té patriote gis nga fi élection mi sax buñ ko fi tégon Pastef da ci bokku té da koy gagner kon waxuma laak nag beneen élection maanaam fii Sénégal Pastef amul lenn loo xamante si nii da nga ko fi organiser te Pastef du ci bokk loolu amul réalité politique la dugg na ba ci biir xoli jaami yàlla yi nekk fii Sénégal te bëgg lu baax ñépp kon na ngeen maintien na ngeen focus te xam ne victoire ngeen téye nii victoire parce que parti boo xamante si nii 2014 lañ ko sos yéen ngeen tàmbalee politique depuis 1960 di nax sénégalais yi di leen nax di leen nax ñu ñëw 2014 yee sénégalais yi ban ne jar ba instant bii nii ñemewu leen a dem élection ak Pastef loolu mooy wan ne daanu ngeen yàqu ngeen jaaxle ngeen te gis nga fii fii Sénégal amul benn élection boo xamante si ni da ko fi organiser te Pastef ji ci bokk. élection Miss boo ko fi organisé woon Pastef da ciy bokk te da koy gañee kon ma dambal demal sawitatër yi te suufi jàmbur yi nga jël fexe ko delloo parce que fii insha allahu rabbi njub lañ fiy samp mbooleem ku doon sàcc la nga sàccoon soo ko mënee delloo ji ci suuf moo gën non ma dambal jaaxle na ma dambal jaañ